laay yow la yàlla tànn ci biir. bàyyi laay rek kay bàyyi laay. sallallahu alayhi wa sallam. ku dul bàyyi laay. sallallahu alayhi wa sallam. وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم هو المالك للحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم وأخصكم على طاعته أما بعد أيها المؤمنون الكرام نهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك ونسأل الله تعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه واغتنام أكبر قدر ممكن من الخير الكثير الذي فيه فخطبتنا اليوم عن خير الأعمال في شهر رمضان وهناك بعض الأعمال الفاضلة بعد الصيام الذي فرضه فرضه الله في رمضان ينبغي على المسلم الاجتهاد في فعلها في هذه الأيام والليالي المباركة نسأل الله أن ييسرها لنا من هذه الأعمال الصدقة وإطعام الطعام وقراءة القرآن والإكثار من ذكر الله والاستغفار والدعاء أما الصدقة في رمضان فلها مزية وخصوصية على المسلم أن يبادر إليها ويحرص على أدائها بحسب حاله جاء في الحديث النبوي من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا لا ينقص من أجر الصائم شيئا ومن خير الأعمال في شهر رمضان إطعام الطعام قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا جنتنيال نيال مي yàlla mi mu ngiy wax ci téereem bu tedd bi ne naka way saraxe yu góor yi ak way saraxe yu jigéen yi ak ñi nga xam ne ñu ngiy lebal yàlla lebal gu rafet des na leen fulal seen ak fay te itam ñeel na leen pay gu tedda maa ngi koy santate moom mooy ki moom ak tey seede ne amul benn buur bu nu war a jaamu dëgg ku dul moom yàlla maa ngi koy seedeel wéetaay ci nguuram bu ko ak kenn di seede itim na sunu sanga muhammad ab jaamam la dib yonentam yàlla sunu borom nu lay ñaan nga dolli teraanga ki xéewal dolli mucc ak barke ci sab jaam di sab yonent muhammad ak i ñooñam ak i saxaabaam mboole seen maa ngi leen di dénk yéen jaami yàlla maa ngi koy dénkit sama bopp ragal yàlla mu màgg mi te di leen ñaaxitim ci toppaka ginnaaw loolu yéen way gëm yu tedd yi nu ngi ndokkeel jullit yi ci terug weeru ramadaan bu barkeel wile tey ñaan yàlla mu dimbalinu ci ñu woor ko dimbalinu ci ñu jaamu ci yàlla ñaan yàlla it mu dimbali nu ba nu gañee la nga xam ne mooy le maximum possible ci yiw wu bari wi nga xam ne mu ngi nekk ci biir weer wu tedd wi sunu xutba tey nag mu ngi jëm ci xeeti jëf yu baax yi nga xam ne taamu nañu ko ci biir weeru koor wu tedd wi ndax kat ginnaaw koor gi nga xam ne moom la yàlla farataal ci weer yi am na ay jëf yu baax yu tedd yoo xam ne jullit bi war na koo xam te itam war na góorgóorlu ci jëfe ka kemtalaayu kattanam ci bëccëg ak guddi yu tedd yi nga xam ne mooy weeru koor wi nuy ñaan yàlla yombalal nu jëf yooyu ci weeru koor wi mbokki jullit yi bokk na ci jëf yooyu saraxe bokk na ca leele aw ñam bokk na ca jàng alquran bokk na ca baril tudd yàlla bokk na ca jéggalu yàlla istixfaar bokk na itim bokk na ca itim ñaan yàlla ñaan amma saraxe nag ci weeru koor sarax li muy màgg-màgg li muy am am solo day am geneen ak jagleel ak geneen ak ràññeeku ci weeru koor wu tedd wi ba tax na dina yell ci jullit bi mu jublu ci saraxe ci weeru koor ittewoo itam ci joxe ko kem ni mu ko mane kenn ku nekk rek ni nga xam ne sa doole ak sa kattan tollu nana na dina yella dina jaadu nga profitoo ci weeru koor wu tedd wi ci saraxe ñëw na ci xadis nabawi moom alayhi salaatu salaam mu wax ne man toro fattara saiman mu ne képp koo xam ne sarax nga aji oor lu mu doge kaana lahu mislu ajrihi nee na di nga am yool bu tol ni moom ba mu am ca kooram gayra annahu la yanqusu min ajri saimina shay'an te kat du tax kenn ñu wàññi sab yool koor kooka nga jox la mu doge te nga te yàlla fay la lu tolloog yool ba mu am ca kooram loolu du wàññi dara moom ca kooram moom ci mbaaxuk yàlla mbokk jullit yi bokk na itam ci jëf yu baax yu yiw yi nga xam ne taamu nu ko ci biir weeru koor léele aw ñam yalla suñu borom mo ngi wax ne wayut imuna taama ala hubbi mune ne dinañu au aw ñam ci bëgg ka manam di joxe ñam wu melni wi nga xamne ne ngay lek yow miskinan mo xam nga jox ko miskin way ñak way yatiman wala nga jox ko ab jirim wa asiran wala nga jox ko ku nu japp ku ne ci loxo yalla neena inna ma nutimukum te fekk ne yow sa lisaanu xaal ci sa yaa ngi wax ne dara taxul nu leel leen lu dul innama nutimukum li wajhillah leeluñu leen lu dul ngir yàlla laa nuridu minkum jazaan soxlawuñu ci yéen ak pay wala shukuron soxlawuñu ci yéen itim am ngërëm kon mbokki julli di saraxe baax na ci jamono ju ne waaye saraxe ci weeru koor dafay gën a baax yol ba day mag lool lele itim baxna ci jamono ju ne waye lele aw ñam ci jamono yu koor day gëna bax yol ba day mag day reey بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى بر جواد الحمد كل الحمد لله تبارك وتعالى أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحبة المسلمون قد كان الصالحون يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من العبادات سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخ سالق فلا يشترط في المطعم الفقر وقراءة القرآن في شهر رمضان لها فضيلة فقد, أن فقد أنزل فيه قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وكان النبي عليه السلام يخص رمضان بالإكسار من تلاوة القرآن وتدارسه مع جبريل عليه السلام فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن والإكسار من ذكر الله تعالى والاستغفار والدعاء مستحب للمسلم في كل وقت ولكنه في رمضان أكثر استحبابا والذكر والدعاء مطلوب من الصائم طوال نهاره ولكنه مطلوب بصورة خاصة عند الإفطار يدعو المسلم عند الإفطار بما أحب لدينه ودنياه وآخرته لنفسه ولزويه وللمسلمين جاء في الحديث ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر جنت جيب جنت يلا تبارك وتعالى سنتناك جنت غبري غسل غبر كيل سيدنا أمو بين نبور ونور جام كدل موم يلا يويتنا نقرم بوكا كين seede ne Muhammad ab jaamam la dib yonentam yal na ko yàlla dolli teraanga ki xéewal dolli ko mucc ak barke moo ki ñoñam ak ci saxaabam boole seen ginnaaw loolu yéen soppe yi jullit yi naka ñi nga xam ne mooy mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi ne woon de daan nañ ittewoo di leele aw ñam daan nañ ko jiitalitim ci leneen lu bari ci xeetu jaamu yàlla yi moo xam ñu leel ku xiif koo xam ne amul lu mu lekk wala ñu leel mbokk mu baax moo xam ne amaana ba ñàkkul lu mu lekk waaye teraanga la rek ak yéene koo leel googu noonu ndax deesul sartaal ci ki ñuy leel mu doon ku ñàkk ak leele moom yool bi ci ne tuyaa ba ci ne bi ci ne jullit bi mën na koo am moo xam ka leel doon ku xiif ku ñàkk wala mu doon itim koo xam ne amaana ba xiiful ñàkkul ndax léeg-léeg ak jaamu yàlla bu mag la mbokki julli di jàng alquran tim ci weeru koor day am beneen ngëneel ci kaw jàng alquran ci weneen jamono bu mu mën a doon ndax ci weeru koor ci la lañu wàccee alquran comme ni ko borom bi subhanahu waxe taala waxee chahru ramadan allazi unzila fihi alquran mu ne weeru koor ci lañu wàccee alquran hudan lin nasi mudon ak njub ñel nit wa bayyinatin min al huda wal furqaan doni itam te ay atte yu leer ci njub ak texale dëgg ak neen te yonent bi alayhi salam de dan na jeklel weru koor ci di baril lu muy al alquran ak di nafar ànd akoog jibril alayhi salam, sax na ci saxiixayni bukhari muslim ne mom sallallahu alaihi wasallam jibril daan na daje ak moom ci weeru koor guddi gu nekk ci guddi weeru koor yi ñu ànd nafar alquran moo tax jàng alquran ci jamono ju ne baax na waaye jàng ko ci weeru oor beneen mbir la mbokki julli di baril ak tudd yàlla mu màgg mi ak jëkkalu yàlla istixfaar ak ñaan lu ñu sopp la ci jullit bi ci waxtu wu ne waaye nag ci weeru koor dañ koy gën a sopp ndax lañ cay yaakaar ak di ko ci séentu ci nangu ci nangu bu ko yàlla di nangu day gën a am doole zikr nag zikr tudd yàlla ak ñaan lu ñu sàkku la ci aji oor ji ci bëccëgu koor gi yépp waaye nag loolu dinañ ko gën a sàkku ci anam gu ñu gu ci jamono ja nga xam ne ca la ca la aji oor ji di dox jamono ji nga xam ne aji or ji mu ngi dog foofu lañu ñu gën a sàkku ci moom mu ñaan jullit bi jamono ji muy dog ah digal noon ko mu ñaan lépp li nga xam ne bëgg na ko ci diineem bëgg ko ci àddinaam bëgg ko ci àllaaxiraam mu ñaanal boppam ñaanal ñoñam ñaanal jullit yi ndax waxtu ñaan la woo xam ne yaakaar nañ ci bu baax a baax yàlla nangu nangu ko ndax ñëw na ci xadis nabawi alayhi salaatu salaam wax ne salaasu daawaat mustajaabaat mu de mu ne ñetti ñaan a ngi nii yu yàlla yi nangu daawatu mu ne ñaan ak aji or wa daawatul mazlum ak ñaan ak ku ñu tooñ wa daawatul musaafir ak ñaan ku nekk ci tukki yàlla na nu yàlla doole xiir si jaamu ka ak topp ka ak ragal yàlla na nu yàlla doole muccal ci seytaan yàlla na nu yàlla doole jàmmal ci suñu réew mii yàlla na yàlla doole jàmmal julli di fu nu mën a nekk yal na yàlla wesaare jàmm ci àddina bi yal nañ ko woor ci jàmm ba woori ci jàmm te akbar ay bàyyi laay yow la yàlla tànn ci biir bàyyi laay rek kay bàyyi laay sallallahu alayhi wa